malikul haqqul ma sadd bay di tey woote bisub seex jiili bul wuute ñëwal nag mel ni kuy rooti ci teeni ngërëm yu dul jeeti ñëwal ngir sàkku loo bëgg a am ci yéene ji sell ànd ngëm bisub yërmande waaju ko xam fu ñuy wooteeti gis kooti borom bis bi di sun iliman ju mag ja lol bari kiimaan te don ko rafet le ay melokan ba tax ñun diine naw koti ku ñepp nawon la ngir dafa don ku tek tankam ci ngeen jiw yoon ku wéetal yalla deug la won te sopp yonen ba roy koti melo cheikh bamba modi di ba waji ko gis ni ki day mom di yembur yalla mi di hakim ki tax duñu gis ci mom wote bisam bee jub ci ñew na am na niir yu taw ku teew làq yi njariñ na nga ñëw ñëwal bul wuute bi woote waxal seex Moustapha suñ seex di nee wax di mooy la mu wax te donga yi yëpp a marsam ndox dangaa doon toon bi ñu roote asalaamaaleykum bokki taalibe yi xam ngeen ni noo ngi fii ci pàkk bu sel kër goo xam ne gii ku mësa a tiit baa nga jàq boo fi duggee sa aajo faju na noo ngi tey ci kër seex Abdou Khadir yilimaan yi yilimaan yi doomam ju baax ji sëriñ Cheikh Mbakkeem Cheikh Abdou Khadir dem na ci Cheikh Mouhamadul muntaha mi nga xamni moy Serigne Touba di Cheikh Abdou Khadir ci mom di Cheikh Mouhamadul bashir ci mom laaj ko ndigal mu jox ko ndigal ci bis bi mu waxo mu tek ko ci loxol serigne mustapha mum Cheikh Abdou Khadir mi tok nak rakam ju bax ji ànd ko bokki mbuso be ak Mbakke bokki Cheikh Abdou Khadir yi ken desul nu tok war leena fatali bi Cheikh Abdou Khadir bi nga xamni li fi jaar fi jaar ku ne doon ñaan kañ la. ak ban bis la ñëw na ñëw na ca na daa ñëwee ñetti fan ci weeru tamxarit bis ba mu ganee jamono te sëriñ Tuubaa waxoon maam Cerno Birahim jeexal say jéego ba ngay dem ba ba ngay ñëw ko dajal jéggal nañ la ngeen di ko laaj bis bi ñëw na altine le premier août incha allah bi di ñetti fan ci weeru tamxarit Cheikh Abdou Khadir nag kenn du leen ko fàttali kenn fàttewu ko waaye ñu di leen ko soññi mooy jaamukatub yàlla ba xanaa dégg ngeen ministre Serigne Lamine Diop la mu waxoon ci moom ne booy dox ci àll ba penku réer la boo séenee Cheikh Abdou Khadir kabaral mooy penku Cheikh Moustapha nag toog na indi nunu nu bagaan yi mu bëgg ku ñëw indi ko taatan ko Cheikh Abdou Khadir duyel la ko bagaan yépp ñëw na ñu waaj bis bi kon ma yëkkati sama kaddu jox ko sëñ Maamun Bousso imaam mu ubbil sëñ Moustapha nun ñëpp nu ànd déglu ko. rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala imaamil mursalin sayidina wa maulana muhammadin bi alihi wa sahaabihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nii ñu fi daa toogee rek di wax wax ji nu daa wax ci bisub ku tedd kii nga xam ne mooy Cheikh Abdul Qadir Mbacké imaamil murs imaamil imaamil muridin wa taqiyuhum wa xaafiduhum wa wari'uhum ñuy toog ngir bis bi nga xam ne moo dellu siwaat ñu di koy yëgle di ko fàttali Serigne Moustapha dana jël kàddu jëmmal woote bi ni mu war a taxawee ñu xam ne jëmm ji moom nga xam ne moom lañuy ñuy wooteel mooy ittaqullaa xaqqa tuqaatihi واتقوا الله لعلكم تفلحون yaa ayyuha alladina amanu taqullaha xaqa tuqaati yi nag mooy Cheikh Abdul Qadir ndax foo ko seen mu waaxu jëm njëriñul bindeef yi la wala ak topp yàlla mooy jëm ci sëñ Tuubaa rek tey gan ay bis bu mas a jënal siyaare ji way juróomu tàddu woowu amul ci lim nekk ci kaw suuf lépp mm-hmm. kon nag bisam bu agsee ñëpp danañu ko bàyyi xel danañu ko séenu danañu ko fàttaliku kon nañu fàttaliku ko nañ ko daa fàttalikoo ndax moom mooy jëmmi sëñ Tuubaa jam waxoon ci boppam ne lam an xu maalam yu fi di kenn mosoo ko seen mu jëm ci lu dul lu am njëriñ dem di xettali ku fi bàyyi ko mbaa ko feeñ ci jamono mu dem di ko joxe aw tur mbaa muy waaxu jëm ci jëmmi barabu Sëñ Tuubaa bi mbaa muy waaxu di jëm ci bindee yi ngir xettali si leen mbaa muy waaxu ngir jëm ci topp yàlla mooy sa topp Sëñ Tuubaa kon nag loolu mooy la ma maa la muy fi di jë Sëñ Tuubaa waxoon ci boppam kon loolu agsi na ci moom kon duñ ko guddal dañuy jox seex mu Cheikh Mouhamadou Moustapha mu joxe ndigal li na mu ko daa joxee yéen mbokki jullit yi ñuy seetaan yépp ak yéen bokki jullit yi teew ci jataay bii yépp ñi ngi leen di nuyu ci turu sëñ Seex Mbàkke mi nga xam ne moo toogee ci jataay bi sëñ Abdul Xaadir Mbàkke di leen nuyu ci aw turam di leen dalal jàmm ci aw turam di leen jottali nuyoo ci aw ci aw nuyoo xalifa général di murit ndax jataay bii biñ ko laataa amal nii <laughs> demal na fa boppam ba yëglu ni ab taalib bi war a def bañ jox ko ndigal ci bis bi nañ ko màggal nañ ko war a màggale ba jot ko ci ndigal ci ci xalifa général de muy sëriñ mun taxa ayyadahullah wa nasarahu ginnaaw bu mu ci jotee ndigal nag la wax ne nañ jot li ci ndi ci aw turam yëgal bokki jullit yëpp bokki taalib yi yëpp bis biñ baaxoo defal sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ñu xamal leen ne mi ngi doon ñetti fan ci weeru tamxarit wi ñu jëm war a dëppoo benn fan ci weeru août ñi ko yëgal taalib bi yépp di ñaan képp koo xam ne ñëw nga ci la ci sëñ bi daali woon tawféex jooje te moom baatam doon baat boo xam ne dafa sar lu mu wax rek yàlla da koy saral dafa jëfëlenté yalla ba loolu ne yalla ne wala kat sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin sama baat sarna ci yoonent yi momit yalla jëfëlenté nak mom ba lool fofu la ne lu mu wax rek yalla mën ko yàlla da koy saraw kon ñi ngi ñaan képp ku ci ñëw yalla dajale lak loolé ñi wut ñun ñëpp ndax yalla da wax ci alquran ni du julit di war a sàkk ak yërmande yàlla ko la maghfiratun min wa rahmatun khairun mimma tajmaun li ngeen di dajale lepp am jéggalu yalla ak yërmandiku mo gën ci yeen kon nak lepp bepp bis bo xamne bo fa demé yaakaar fa njéggalu yalla yaakaar fa yermande yalla war nga ci farlu war nga ubbi say boole ta tatan ndax woor na ma li inna li rabbikum fi ayaami dahrikum la nafaha bis bi ci la ala fataharradu laha tatan len ci bu baax kon yalla na ci yalla may ñu tatan ci ta tatane bool yaatu yu ak positif ànd ak euh, yéene ànd ak xasdul xayri ndax loolu ku ko def ci bisam ndax dundam gépp mi ngi ko jeexal ci fihlul xayri ak niyetul xayri ak xawlul xayri ci dundam bépp ci loolu la ko jeexal kon ku ku ñëw ci bisam loo ci sàkku ci sun borom mi mu doon liggéeyal waajuram wu tedd wi mu doon liggéeyal mën na la ko defal kon ñi ci woo ñépp bàyyiwuñ kenn ndax moom doon na jëmm joo xam ne ku maandu la woon te bëgg ak maandu ku ku amoon yërmande la ci nit ñi ku daa dimbale néew doole yi la ku daa rafetal jëm ci bokk yépp la ku daa nemm ko bokk yépp la it ku doonaan na koo xam ne eh, loo ko mën a def daanaka wax sax man bëgguma kenn ku ma jot li ci nit ayib la ilaha illallah waaw sëñ ma koo bañ de waaye ku ko def def nga ma lu ma naqari dégg naa dégg naa mu waxee ko noonu waaw comme li ma bëgg daal ku ma jot ci nit lu baax foofu la nekkoon kon doonoon na koo xam ne ku fiir la ci diineem nag waaw kooku jegee ku ne xam nga ne ku fiir la ci diine diine moom du ci maye dara noonu la ko yàlla bindee woon kon daal waxu saaral xawli innahu kaana mathalan raihan lissalaahi wa taqwa wal istimsaaki bil kitab wa sunna kon dal li ñuy jeexale wax ci mom hmm. moy na ngeen xam misa ab ab ab royukaay la bu yéeme ci baax ak ragal yalla ak japp ci alxuraan ak sunna non la ko yàlla bindewoon kon lolu li nga ci yem muy hmm. wajiram bi rek mom mi nga xam ne ni ko sëñ Mourou Bousso waxee woon rek ñim wa kërëm ñëpp def na len fahum mo kan nujoomi man talxa minhum kana sayyid al akhyar ñom ñëpp ñi ngi melni biddi ko ci dajel rek bu la nexé ci waxto nga ne mo gën ci tanif fi ta da nga wax deug lolu kaleen ko def kaleen ko solal mo mo kaleen solal batin ba ak jawhër ba ak sayir sa koku moy señ bi ke nga xam nak amna am mag mu da wax señ màlla sek la tuddu moy baye señ bayaa seen sekk man di señ bi mo koy door gis ci ganar dama yaakaaroon ne dama daa wax ne sëñ bi sëñ bi demagut ci géej gi bu ma ko gisoon dama koy wax ne ko ñëwal jébbalu ci bii dëgg la ndax bi ma gis ci gànnaar bis musuma gis ko ni waaye bi ñëwee Jolof uh-huh. dama boo mënoon a wëri sëriñ bañ doon jëflanteel ci gànnaar dama koy wax ne ko ñëwal jébbalu ci bii bi ñëwee Njaareem boo mënoon a seeti sëriñ ba noon ca Jolof uh-huh. ne ko ñëwal jébbalu ci bii uh-huh. naa ko def noonu la sëriñ noonu la sëñ bi mel kon yàlla na nu yàlla dimbali eh. taasuñ ci barkeem ñi ngi ciy woo bokk jullit yëpp bokkuñu me bàyyiwuñ menn mbokk mm-hmm. bàyyiwuñ benn ci tarixe suufi yi mm-hmm. ñëpp lañ woo mm-hmm. wooy ci it jànkati alxuraan yi bàyyiwuñ kenn ndax alxuraan a ko gënoon a ñor ci lépp alxuraan daf ko bëggoon di ko déglu di ko firi nga xam ne firi yu bari jàppe naa ko ci moom danaa ci indi sax yenn yi rek teew ci sama xel nii rek an ana boo xam ne dañuy dañuy dañuy teg alxuraan bi nasullaha fa nasiyahum mu daal ne nasullaaha fa nasiyam fa tarakahum yàlla du fàtte noonu la firi mu leer la la koy firee fàtte nañ yàlla yàlla bàyyi leen ndax yàlla du fàtte yàlla nag day def boo ko fàttee mu bàyyi la fekkee naa yit mun a ina ina arsalna ina arsalna sayatin xalal kafirin te ussuhumoo assan mu ne te ussuhumoo mooy kayitloo daal ne axraahu wa xamala fii fiihi wa xamalahu alayhi mooy mooy yàlla mooy mooy fiir xiir gi mu la ci xiir mm-hmm. waaye loolu mooy këyitloo seytaane day ay gaayam mm-hmm. da leen di jël di leen këyitloo di leen ñu caaxaan loo rek ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñuy tappe luñ ko indil bu subaa ñu indilaat leen dolli ci mu ne te ussuhum boo ko doon firi xiir la ko téere yi firee waaye yow dee ko firee këyitloo këyitloo ba <laughs> lu mu la naxee tey bu subaa mu naxewaat la leen mm-hmm. dolli ca lam la naxe woon nee na loolu seytaane def ñaan nag moom dégg dégg fekkee naa yéen mu ne mus jal mu ne alxuraan mu ne mu ne loolu wax na ko dane eh, mus jal <laughs> ak ak ak muqayyat rek moo am mooy daanaka li ma doon wax ci julli gi mu ne mus jal mooy luñ tënk mooy luñ boyal luñ joyal dañ koy firee ci woyal <laughs> muqayyat mooy luñ tënk mu ne am na yoo xam ne alxuraan bu ko indee mus jal la ñëpp la ci yemale jullit ak yéefar mooy lu mel ni hal jasaa'ul insaani illa l insaani loolu mus jal la hmm. waaye am na yoo xam ne nag da koo tënk jullit yi képp la jox ndigal loola sëñu leen a génn loolu mooy muqayyad <laughs> noon la daa firi alxuraan firi yu leer yoo xam ne lu mu ci noppi bu noppee danga nga xam lu mu doon kon nag alxuraan jooju mu fonkoon mm-hmm. hadiis yonent bi sallallahu alayhi ku ne xam ne ni mu ko bëggee woon mm-hmm. alxuraan jooju daara fu daara ne ñu ngi lay mm-hmm. ñaan nga jàngal ko alxuraan te sellal ko fu daara ne loo ci mën a teg ci salaatu ala nabi fii ba bis ba muy biir réew mi muy ku ne na nga daal tàmbali njàng mi boo déggee woote bi rek wëllëri yëpp nag ñu ngi leen di woo di woo taalibe bi yëpp yi ne ci biir réew mi ak yi ne ci bitim réew mi di ko yëgal waa commune bi liñ ci war a def lépp xam nañ ko nañ ko def di ko yëgal di soññi dongay murit yi ñooñu mooy ñooñu nga xam ne ñoom laa war a soññ li ci ñi ci des da ngeen leen da ngeen leen soññ. baax na yàlla na def lu ci waay yëngu. Hmm. yàlla na ko yàlla def muy jëf juñ nangu. lépp lu yëngu ci moom. te defe ko pasir nag bay ba nga rafet ci njort ci ne mën naa nekk xamalan xaalisan maqbulan indallah yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla teew ñun ñëpp nag wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ke noo ngi ñaan yàlla bàyyi la fi yaag sëriñ cheikh ak njaboot cheikh abdou xaadir yëpp beesa beesalaat nga nu peq tey ñu jox kaddu gi nag sëriñ buso moom itam alaaji buso mu waxtaa mu wax ci turu sëriñ ciidi leeral bokk yi ak programme bi nu muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ngi leen nuyu di leen siyaare di xamal ne ginnaaw bi ndigal lu jógee fa mu war a jógee ci Cheikh Sidil Mokhtar jaar fa war a jaar sëñ Cheikh Mbacke Cheikh Mouhamadul Mountakha jaar ci sëñ Cheikh Mbacke muy xalifa Cheikh Abdoul Khadir jaar sëriñ Moustapha mii xam ne mooy jëw kër gi tey jotaay bii dikk ba sëriñ Sidi bi nga xam ne mooy coordonnateur màggal kon ñu ngi wax ci aw Seydi nee na mi ngi woo mboolem ñi mu feqal màggal gi yëpp mboolem mbokk yi ba tàmbalee ca mbokk yi mooy maxaram ka ca njëkk ba ci ci mujj lu ci waay bokkee nag ci ndey ak ci baay góor ak ci jigéen ñëpp la woo di woo mboolem taalibe yi di woo mboolem xarit yi di woo mboolem euh, soppe yi Sëñ Abdou Khadre loolu bu ñu ko waxee réew mi daj kapp taalibe yi murid yëpp dugg nañ ci biir moom amutoon ab settee ci murid yi mbokk yi itam ñëpp seen mbokk la Euh, sappa yi nag moom génn sax taalibe yi génn na sax ñu ñu dul jullit kon ñëpp ay soppeem lañ kon ñëpp sëñ Sidi mi ngi leen ci woo ci bis boobu la di woo mboolem ñi nga xam ne bii ñoom la seqal liggéey bi te mooy mboolem daayira yi nga xam ne mooy daayira yi na ci biir réew mi daayira yi na ci bitimu réew yi na ci kër gi ndakaaru fépp ñu ngi leen soññ kenn ku ne fa nga taxaw la nga daa def na ko def nu raw na nga daal màggal gi ko amu ci sopp ko amu ci itam yokk rek moo ci kenn ku nekk daal la nga doon def safali yéene mu yokkuwaat waaye bu ci dara dellu gannaaw ñu ngi soññ itam mbooleem ña nga xam ne bii dañ daa taxaw ci def ay xéewal di ko indi ñu si ndaw ko ndaay yi mel ni waa sëñ Cheikh Bara ak waa këram taxawaay ba ñu ngi leen soññ di ñaan lépp luñ ci waroon def luñ ci yéene yàlla àggal seen yéene waa sëñ Cheikh Niang Diaby ak sëñ Seydou Niang ak mbooleem mbokk yi nga xam ne bii rek daanañ taxaw taxaw yi noonu ak sëñ Galasmaane Mbàkke itam ak mbooleem mbokk yi nga xam ne daanañ taxaw ci mel noonu ñu ñaan kenn ku nekk rek la nga ca warloon def dinaa ko def yàlla yàlla yokk loolu barke sëñ Tuubaa di xam ne itam ne ñu euh, ngi ko yëgal mboolem nag ñu ngi seq réew mi yëpp tam lañ président de la ak mboolem gouvernement bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo la seq ak réew mi mooy ñuy wut te ak ñu am ba noppi itam muy porte opposition bi ñëpp ñu leen ci woo bawuñ kenn ndax suñu Abdou Khadre ñëpp njabootam lañ fu ne am na fa am waa kër bu fa nekk kon mu ngi woo ñëpp kenn ku nekk daal na nga ñëw la nga ci war a taxawee nga taxawee ko réew mi nag dëkk magal gi da bokk lépp loo xam ne li mbooloo soxla na ko wala aajo woo na ko ñu daa ko defee mbooloo soxla nañ ko ci bis bi itam kon kenn ku ne la nga ci war rek xam nga ko na ko def na ko war a defee ñu ngi woo ñëpp ci loolu te xam le nag ne daan dañoo am ay plateau spécial yu ci def yoo xam ne yi ñu ngi ko tuddee waajal màggal gi mu nekk ñeenti plateau bu njëkk bi ñu ngi koy def alxames kër sëriñ Fallou Mbacke suñu amul Fati Gaye kooku ku ne xam digg boog sëriñ Abdou Khadir mu nekk ci Daaru Manaan loolu mi nga nekk le 21 septième mois 2022 ci alxames ci 17 heures incha allah ñaareel ba mooy kër sëriñ Fallou Lo moom itam ñu ngi koy def gaawu si farlu ca sura gaaw lay doon le 23 waa mois 22 euh, moom itam incha allah ci sura 17 lay doon incha allah ñetteel mooy kër Serigne Sidi Abdou koy defee moom ak akrin lay doon le 25 septième moom itam incha allah ci 17 heures boobu ñeenteel bi nag mooy plateau ci kër gi fii lañ koy defee moom moom mooy nekk moom talaata le 27 septième mois incha allah. kon na ko ñëpp bàyyi xel ñëpp fonk ko baax a baax ñu ngi woo ñëpp di séentu ñëpp yàlla yàlla di indi ci jàmm delluwaat ci jàmm lépp lu fay ñaan yàlla ko yàlla nangu barke Sëriñ Tuubaa jërëjëf dégg ngeen Sëriñ Alaaji bu sa wax ju rafet ji mu wax ñu jox kàddu gi nag Cheikh Mourtala Mbacké mu sëñ Modou Abdou Khadir mu wax ci turu sët yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbokki taalibe yi fi teew yëpp <laughs> di jiital ci suñu nuyoo Cheikh Mouhamadou Moustapha Sëñ Abdul Xaadir Mbakke mi nga xam ne moo moo fi teew teewal fi Serigne Cheikh di wax ci sa turu Serigne Sidi moom Sëñ Abdul Xaadir mi nga xam ne moo moo moo jiite màggal woote nag ci turu sët Sëñ Abdul Xaadir yi nga xam ne ñu nag ñun daanaka mën naa ne ñoo war a laxasaayu jiitu ci liggéey bi topp ci ginnaaw Serigne Sidi ñu ngi soññi mboolem koo xamante ni da ngaa sëtoo ci moo ci man di sëtoo góor walla jigéen mag wala ndaw taxaway yi ya nga xam ni ko da taxaw ci magal gi ñu ñun ñëpp ñu ma sa la maase ando euh top ci gënaaw sëñ Sidi ba ni ko sëñ bi bëgge ñu defee ko nonu kon nak ñu ngi ñu ngi ñu ngi woo ñi nga xamante ni ñoo bokk ñoom sëñ tuba ñëpp ñëpp ne bis bi moy suñu bis mom lañ am lañ ci da def lepp parce que yene lepp dañ ko dañ fas yéene yokk ko way fasuñ ci yéene wàññi dara ñi ñaan suñu borom àggaluñ ci ak jamm te mbolam luñ ci def lepp rek ñu daje ci ngeer mu sëñ tuba di ci sàkk it bépp boo xam ne sëtu Sëñ Abdou Khadre nga lu tàmbalee eh, tey tey jii ba keroog màgg màggal gi ñëw loo mën ci jàng alxuraan ci sa jëmmi bopp nga def ko ko delloo ko ko njukkal. jigéen ak góor ak jigéen. mboolem koo xam ne mënoon nga ko sa bopp na nga ko def ñu ko mën a ñu ko mën a seq ñu seq ko bu demee ba àgg ca bis bu jege ba ñu dajee tëj ko nag ñu ngi ñu ngi gën a fàttaliwaat suñu laxasaay bu baax ci ak suñu taalibe ci suñu ginnaaw kilifa fas yéene. Euh, lépp loo xamante ni rek digal nañ ñu ko rek ñu ñu doxale ko noonu mi ngi ci woo mi ngi ci woo mboolem kun seqal sëñ bi ñëpp rek mun mm-hmm. waxee kun seqal sëñ Tuubaa nag maanaam ñëpp ci leen bokk kon jërëgeen jëf yàlla nañ ci àgg ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu jox kon kàddu gi sëñ Mamour Diasara si turu fédération bi xam ne mooy fédération Kër Cheikh Abdou Khadir nun ñëpp nu àndandoo déglu ko asalaamaaleykum yéen waa fédération Kër di mooy taalibe yi nga xam ne ñu aju ci kër Sëriñ Abdou Khadre ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen xamal ne suñ bis bii leen leen di soññee nga xam ne amuñu lu may moom ñu bisu màggal Sëriñ Abdou ñu ngi ci woo bokki jullit yëpp rawatina bokki taalibe yëpp di wax ci bokki xamal leen ne bis bi ñaari at li yoo xam ne defuñu ko nag ñu war koo def kon li war li war li defutoon ci ñaari di yëpp lu ko raw nañ ko def ci at mii mm-hmm. kon ñëpp nañ takku kenn ku ci ne xam ne amuñ lu may bis bi ñooy war a teeru gan ñi ñoo doon war a teral kenn ku fi ñëw bu mu tubaranke loolu nag fédération bi moo ko war a def kon nag ñu ngi koy loolu maa ngi koy wax ci turu Serigne Cheikh Goumbale mi nga xam ne moo jiite fédération dakaar euh, ak ak waa Dakar yu ñëpp ci turam lañ koy ci turam lañuy defee fa waxtaan bii leen xamal ne mi ngi soññu mboolem daayira bu nekk Dakar xamal ne nañ ko waaj nañ ko daan waajee ak mboolem fu nekk ci biir réew mi ak bitim réew muy daayira seydou xay yi nekk Italie Espagne Amérique ak daayira yi nga xam ne moo nekk Guinée Bissau ñëpp sëriñ si di nee na mi ngi leen di fàttali bis bi nee na nañ ko nañ ko waajal te fonk ko di soññ itam daayira turandoo si Abdou Khadir yi nga xam ne taxawaay bi ci daan am ku ne xam na ko ci wàllu organisation bi yëpp itam ak ni ko sëriñ Moustapha waxee léegi nga xam ne mu ñooy doongee laxsaa yi nga xam ne ñoom bis bi eh, seen bis ku lu fa def ñoom lay dimbale ñoom itam ñi ngi leen di soññ taxawaay yi nga xam ne daan nañ ko am ci bis bi Eh, ci ci kër gi ci organisation bi loolu ñu nekk fàttali di fàttali mboolem daayira yi nga xam ne ñoo ay ci eh, fédération bi ne incha allah mbalay bi danañ ko def àllarba maanaam ajjuma ji di ñëw di la 22 incha allah li ñuy dajee fii ci kër gi ak ci mboolem barab yi nga xam ne njaboot si mbixaati dajale fa ñu bale ko ba mu set wecc ngir teeroo ko gan yi waajalee ko bis boobu yowee bu ñu àggee ba nga xam ne àgg nañ ci àllarba ji nag di la ci lañu dajee ci bis bi ci kër gi baas lépp loo xam ne soxla nekk ci wàllu baas ñu def ko ñu xam ndax ci nawet lañu nekk kon nag ñu ngi woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ñëw jàppale ñu suñu bis bi nga xam ne amuñ lu may moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Mamour Diatara li mu wax ci turu fédération bi ñu jox kàddu gi nag Serigne Djili Dia mu wax ci turu turandoo yi nun ñëpp nu àndandoo déglu ko bismillahi rahmaani rahim barkab Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bokk julit yi bokk talibé yi ñu ngi leen nuyu bu baax te di leen ziar di yëkkati suñu kàddu rek ci turu mboolem turu ndey Serigne Abdou yi nga xam ne bis bi seen bisu bopp la ndax ñoo ko tàmbali woon sëñ bi nag ne na mbir yi ñett la li nga moom ak li nga bokk ak li nga doonul dara lii nag dañ ko moom kon ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci turu Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne mu nekk ci bop bi di soññi mboolem fu turandoo Serigne Abdou khadir nekk ci réew mi ak ci bitum réew ñu bokk waajal baax suñu bisu turandoo bi kenn ku nekk fa nga daan bindo selil ba fa nek nga dal yeesal mbind te joxe fa sàddiya ngir waajal bis bi bu ko defé selil bi nga xamne mo nek digënd Touba ak Mbacké ñi ngi leen soñ soññ ci liggéey yi nga xamne mo moom lañ taxawé tambalé ko ci mbalé mi nga xamne mo moom la ñu woote ajjuma le 22 bu ñu xëyee ñu ñëpp ñu bokk rajo fi ci kër gi ngir ànd ko bokk talibé yi waajtaayu gi it liggéey bi nga xamne tour turandoo chef de xarit daan ci biir kër gi dara tambalé ko ci liggéey bi nga xamne jitu magal gi ba ci bis magal ga bis magal ga ñun ñëpp ñu bokk ci kër Serigne Mbacké mom cheikhul khadim weyel fa liggey bi dan def ci jàng alxuraan ak xasida yéen doo ko fanane ko def ko de Cheikh Abdoul Khadir ñu sukkandiko ci ndigal li nga xamne ne la Cheikh mohammed Moustapha joxe ñu bayiko xel ci ni nga dan wajale fu turondo Cheikh Abdoul Khadir nek mu jàng kaamilu alxuraan def ko de Cheikh Abdoul Khadir lolu nak ben kamil la tambale waye lu way man ci limu alxuraan du doy nako def ñu def ko de Cheikh Abdoul Khadir te limbi bu ñu degee kër Sëñ Murtala ñu degel ko jox ko jor ñu fa nek inshallah allah kon ñu ci wo fu turondo Cheikh Abdoul Khadir nek bayu yuñ kenn Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa di nuyu itam nak ci turu wa ahlu tarbiya yi ya nga xamé ne ñoo tarbiya wa ci sëriñ kër serigne Abdou Khadir di len soñu rek nan len da soññee soñé bi nak sunu serigne sax jàppale nañu lool muy serigne Moustapha ndax dégg ngeen ne tuduna dongé la laxasaay yépp lool doyon na ci nak li tax itam ñi wax dafa am yoonu da doxé moy muy liggéey bi nga xamé ni ci kër serigne Abdou Khadir nga xamne bir caisse yi ñoko da setal ci ben gi di ko setal ca mujj ga Touba Mbacke nak waxone ne nan leen ci soñu ba kenn ku ci nek nga bàyyi ko xel ta fas ci yene liggéeyal serigne bi la ci tege moo ñu deen ci a addi yi nda joxe diko dajale muy ahlu tarbiya bi seeni tek ak social bi nga ne dañ def ci bir ngir di ci dimbalante ñu di am xamal rek ne len yeen seen na nga xamee ni laa daa ni la daa doxee dara da cee soppiku wut lu weesu wut njëkk fi mujj fi ànd ak yar ak i teggin te ànd ak sëriñ Afi so mi nga xamee ne mooy suñ njiit ne ci kanam di ko déglu lépp loo xamee dafa jóge ci sëriñ Sidi bu jaaree ci moom bu egsee ñu jëfe ko nañ ko war a jëfee loolu mooy suñuy wax mooy suñu jëf ñu ngi leen di woo ñi nga xamee dañoo nekk fi jege dëkk bi ñu ngi leen di woo réunion ajjuma ñu teew fii ci kër sëriñ Abdou Khadir ñi nga xamee dañoo ne bitim réew itam ñi ngi leen di ñaan kenn ku ci nekk ndaw la la ne ci sa kër moo xam sa doom la moo xam sa soxna na nga ko jox addi yi mu indi ko ajjuma loolu daal mooy soññe bi Serigne Touba waxoon ne nañ ko wax muy Serigne Touba Mbacke Baxdaad te tam jóge ci Serigne Jili Ndiaye mi nga xam ne ñun ñëpp mooy suñ mag ak ku mel ne Serigne Mbacke Jenn ak Serigne El Hadj Ndiaye Resit ak Serigne Afi bu moom yi ndax ñoom itam jàpp nañ ci daayira bi lool wéttali nañ ñu lool kon ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom guddal seenu fan defal leen tawféex ba li ñuy mébati sëñ bi di yaakar lepp ñu defal ñuko ñu ñaan ah serigne Sidi Mbacke mi nga xam moy mooy suñu jëwrin ah serigne mustapha ñi nga lay ñaan nga ñaanal ko mhm. aw fanam guddu tam ndax nit la ko xamne mi ngi deglu ñepp xeebut xalam kenn ta du sonn ba soppi ko kon nang ñu ko ñaanalal bu baaxa baax ndam lu ci da am yal na ci am ren lu ko upp ci barke serigne Abdou Khadir ngeen serigne Jili Jeng wax ji mu wax waye xana rek wax Cheikh mustapha ni ko njabootu sëñ Abdou Khadir ñu sant Busaak Mbakke ñëpp ñu ngi ndoo di sant Cheikh Mamadou Mountakha Mbakke ndax sëñ Mountakha ku ne xam ne diggam ak sëñ Abdou Khadir waaye ginnaaw sëñ Abdou Khadir nag cër bi mu jox njabootu Cheikh Abdou Khadir gépp ñëpp teg na ci bët kon bis bi bis yëpp la moom de waaye bis sëñ Abdou Khadir moom génnul jibaam ma nga ca biir bis baa ngi noonu mooy bis suñu jàmbaar ja ka nga xam ni moo daa tudd doom yi du jullee ji néew yi dafay ordonnance yi wuuf njaboot gi kenn juyut xanaa dégg ngeen la ma waxoon sëñ jëli gànnaar ba mu ko joxee ñaari junni ni ko ku ñaan maram juuf moo ma ko jox ma nga njukki ne dafa ragal bàmmeel mu ne ko na dalal xelam jukkee naa ko fa kookoy Cheikh Abdou Khadir ilimaan yi teeg ba liggéey bi mu fi nekkee ilimaan la bi mu fi jógee ilimaan la ba léegi mi ngi ci penku jumaa ji l'islam jëmu ko Sénégal yebul sëñ Abdou Khadir ku mu jur yar na la teg na leen ci yoon ku ñëw ci bis Cheikh Abdou Khadir alxuraan moo lay fay ak julli ak yitte yooyu lay kar fay la bis baa ngoog la premier la bu kenn manqué ñu xam ni nag bâche bi ci guddi gi xaadim géey moo fay fanaanee jàng ba bët set na ñépp ñëw bis Cheikh Abdou Khadir ku ci feeñ ci lu baax dootoo nëbbu malikul haq Cheikh Ibra yow ku réer yaa ko gindee Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall